ndaw moo yorum réew lëg bu jàngee mu mel ni xale yi sax dañoo fàtte loolu ba jël njàngum mi ca jiital ko ci seen xel yi ba tax na ñenn ci ay xale yu toll ci njàng ñu bëri rek boo leen seetloo seenum xel ci dawalum sareet rek lañ ko daal di def loolee nag mën leen a indil ay jafe-jafe yu bëri yu jëm ci seenum njàng ak wàllum yar bi boo seetloo nag mu mel ne sax ñi def parents yi sax dañ ne da leen cee bàyyi ba tax na askan wi kenn ku nekk ak xalaat nga xamee ne moom nga ci daal di amee seriñ bi moom di wuyoo ci turu Cheikh Seye di dawalkatu sareet di xam ne ne loole daal da ko ñaawlu bu baax baax amee lu yi mooy ci eh, am njàng la leen di sopp pour ñu gën cee góorgóorlu. ñu ci bari ci ñun noonu lañ ko gisee mooy xale yi te jamono sëñ Sidi Muxtaar lañ ko njëkkoon a dénoncé ne leen mooy de 18 ans yi nañ ñu xajal charette yi parce que nit ki bala ngaa xam rek da ngay jàng ba pare ba xel mi ubbiku nga am xam-xam doog mën a liggéey soo jàngut doo mën a liggéey mais boobu côté moom service d'ordre ji moo moo ñu ci jàppalewut parce que demoon nañ ba wax ko après ñu waxaat 15 ans. kon ñu ak ñiim la suñu sañoon man personnellement nga xam ne man maay coordonnateur garasu Kër Sëñ Ñaan xale yu ndaw yi dañuy jàngi métier wala ñu jàngi ndax bala ngaa jàngi métier sax d'abord da ngay jàng ba pare doo ko jàngi métier. lépp loo gis lu nekk muy métier saret rek muy métier mécanicien muy lépp loo man di gis balaa ngay ngay commencer war ngaa mun a toqantal sa nopp ak sa xel ci xam-xam. ba nga xam lépp lu ñëw ci aduna da nga mën a maîtriser parce que nit ki bu jàngul moom moog bàyyi ma ñooyam et tamit gone ndaw yi nii kenn ku ci nekk xëy na weccet yi leen ciy toppee rek moo tax ñu nekk di ci kii mais ñun mag ñi ci nekk sax nekkul lu ñu gënal mais na ku amul lu la gënal am la fa sës. ñeen ñenn ñi tamit daal di jàpp ne ñu bëri ci parents yi la ndax amul benn xale boo xamee ne warees na laa yare ci mbedd mi. responsabilité ci parents yi la ndax nit ki mënut a xëyee këram indi saretam bu nit ki uudi ni mu la gisee ne la ewale parce que maanaam xale bi toole jàngam na dem jàng rek parce que xam-xam mooy lépp nit boo amul xam-xam amul dara mi ngi mel ne mbaamu safi teere rek sëf ga rek la jàmm maanaam li war a jiitu ci nit mooy jàng ba xam say farata xam say sunna xam ni nga mën a liggéey xam ni nga mën a jaxasoo nit ñi te yaakaar naa xale yi loolu manqué na ci ñoom lool lool mu éducation. waaye jur doomu aadama nit ak ni mu amee kii nga jékki-jékki rek abandonné ko wàcc ko ci lu ko neex des fois tamit da ngay gis situation yoo xamante ni tamit parents yu jigéen yi ci lay ci lay demee parce que seen i papa lañ war a ko wala boog seen i am-am lañ leen war a defal seen i soxna defaluñ leen ko sa doom nekk fii nii ci saret yi di lijjanti donte ne aw 1000 francs la chaque jour xam nga yéen jigéen ñi yaa ma gën a xam seen natt yi ngeen di bokk ak seen affaire yooyu noonu ku ci dikkoon ci saret yi tey jii ni si tey yóbbu 1000 francs sa doo laaj fan loo ko jëlee doo xam nan la def doo xam ba xam jàngeen wala jàngut looy xool sa arrangement sa natt ba nga bokk mi ngi la koy tegal ak yooyu noonu wala mu ngi lay jox loo xam te ni yaa ngi koy jëriñoo ci sa biir kër loolu la ngay gis ba la lépp bokk mu mel a baax di xam le ne Makhtar Mbacké jëloon na a saafara woo yaakaar naa rahmatullahi ne dégg misirim ci jëloon xale yi xale yi xale yi waaye yaakaar naa xale nag fi mu doon nii nekkatul ci chef de garage ñoo ko mën a jëlee nekkatul ci kenn ñoo ko mën a jëlee ku du seen waajur yi ndax yaakaar naa bu doon chef de garage lu ne def nañ ko ci lu ne lu ne jéem nañ ko nag nit boo xëyee xëy gis ko yaayam takkal ko ah ko seedaan rek loolu dong mooy wax ci fi mu doon nii. mu mel ne nag xeex boobee nag neen dañ cee wéet bu baax. boo ko juree da koy yóbbu école mu jàngee waaw mënoo ko ko dugal euh, école mu jàngee mais nit day fi problème yoo xam ne doo xam problème lan la ñu jël ko di ko boy boyal ci loo xam ne lu dëgg xam nga te loolu gënut ndax parce que fii ku fi jubadi dañ laa war a teg ci yoon jubanti la ba nga jub ñun ñëpp si bokk yëpp ndax parce que ñoo seq njaboot gi. même suñ autorité yi sax xale yi dañ leen di dépassé wala xale boo xam ne mënut a téye làpp xamul luy ko dara lu nga jox ko saret kooku c'est pas normal jaaruwul ñun noonu ngeen ko gisee lañ ci gën a am lu ñu naqari ndax ñooñ sax ñun ñoo ñuy gën a yàqal suñu liggéey te mënuñ ci dara. bu ko li ne seen bopp yi mënoo ko ca jëlee ci kër yi lañ yàqoo mënoo ci chef de garage mënoo ci dara sëñ ndegam sëñ bi ci mën dara asmaa ngeen lu ci bëri police moo ko war a mën a dindi lu ci bëree bëree bëri bëri am na yu sew yi ne ci biir yoo xam ne ñoom rek ñoo ci mën a jàppale nit mën a jàppale mooy leen xale bu ndaw bu leen romb yorob saret ñu jàppala loolu nag doon nañu ko def waaye dañu koo bàyyiwaat xam nga tubaab moom dañu jël benn affaire am yàgg njëkk rek tegal waaye bu ñu def xale bu leen romb yorob saret ñu jàppale tekki la boo léegee sa morom du ko yor. mu mel ne nag ñi nga xam ne ñoo jiite garage yi ñu ngi wut wàllu ci xeex boobu yi ndax loolee dañ caa wéet di ñaan kilifa yi ñu jël ci seen i matukaay bu baax a baax ngir loolee mën a saafarawu